mooy que li li waroon am euh, am na processus bi commencé nañ ko woote nañ ko pour pour metre suñu collègue euh, à l'aise pour que mu mën a euh, dem wuyu ci yoon seetal boppam. man de man sama intime conviction dama ko mettre à l'aise parce que bu nit amee bu amee bu joteek ay concitoyens kenn mënu leen euh, tegaat ci yoon lu dul lu dul justice donc faaw ñu may ko du dëkk bi réputation aussi daf ko war a sàmm faaw mu dem justifié wu ah précipitation mënu ci am dem leen xool suñuy manuelu procédure muy suñu euh, comment on appelle ça règlement i ñi may ci euh, comité ad hoc moom la ñu respecté mu jeex. mais démb moom Ousmane Sonko dafa jàpp commission war a nekk te waaw comité ad hoc loolu la ñuy wax mais ça veut pas dire kenn bu démissionné wala bu kenn nekkul comité bi du euh, du continuer.